yi nga xam ne nag moom lañ sumb léegi rek muy waajal bés bi te foona Serigne Cheikh Thioro Mbacké dellusi na ci soxla bës bi ak dayo bi nga xam ne moom la am ci yoonu murit mais également ci diine l'islam foona duñ ci adduwaat du nañ li nga xam ne moom lañ xalaat ne suñ ko defee ànd ko comité d'organisation bi suñ boroom mën na ñëw dimbale ba bés bi jàll ci jàmm muy secteur yëpp yi nga xam ne war nañ ko ci mën a soxla ci wàllu wër gi yaram foog naa ne lañ ci àddu muy juróom-ñaari poste avancé ak ñeenti ambulance waaye également ñu xool rek ni ñuy renforcer en personnel mais également médicament la dispositif parce que foog naa ne loolu dina ci dina ci am solo ci wàllu cet muy désinfection des concessions loolu service d'hygiène foog naa dina ci lëkkaloog commune Touba Mosquée ainsi que saupoudrage foo naa ne wax nañ ko ci ndax jamono nawet lañ ne ak yow foo naa ne suñu saupoudre dëkk bi aussi dina dina ci baax pour quand même euh, lutter contre la prolifération des des moustiques la ca des rek mooy euh, ànd koog commune su fekkee am nay jafe-jafe ci produit ñu mën ko teel xool lañ ci mën a mën a àddu ci wàllu assainissement également ONAS dina ci dugal loxoom ci camion de village mais également commune Touba Mosquée engagé wu na pour également def ay voyages yi nga xam ne mun nañ ko lim ci téeméer ak ak juróom fukk nawet aussi lañ ne et là ñu wax rek sapeurs-pompiers ak ONAS surtout ak routier yi nga xam ne mooy jëm ci Daaru Xudoos ñu fexe ba évacuer ndox yi nga xam ne ñooy tere dem beeg dikki bi soo laajee nag ay jumtukaay ñu teel a def expression des besoins on mooy mooy li gën mais également commune Touba ak li jumtukaay mu jot amas néew ñu boole ko am nañ ci yaakaar suñu boroom mën nañ ci defal defal ndimbal. wàllu ndox foo naa loolu aussi amul euh, du am yenn jafe-jafe yi ndax camion citerne yi toll na ci juróom-benn yi nga xam ne moom ngeen àddu. defoon euh, naa ni bu nekk Touba su ko matul tamit jege na ko kon yaakaar naa ne loolu dinañ ci euh, dinañ ko dina mën a jàppandi lu ci des rek mooy la gestion mooy le contrôle loolu également ngeen lëkkaloo seeg l'autorité administrative le de Ndam su dee diggante bi am nay jafe-jafe rëq rek ñu koo yëg xool koy mën a mën a jubante euh, wàllu courant foo naa ngeen ci àddu muy miir hors ñetti fan lu jiitu màggal gi ak ñetti fan après waaye toppatoo également l'éclairage public loolu Sénélec ak commune bu Touba Mosquée dinañ ci ànd liggéey ci ndax foog naa ne day dimbale également takk yi ci wàllu kaaraange euh, groupe électrogène également pour éviter surtout coupure am na mu mun a jël mun a jël le relais loolu également engagement la yoo xam ne Sénélec addu àdduna ci li ci des rek mooy wàllu kaaraange foog naa ne commissaire spécial de Touba. Euh, ñoom ak la gendarmerie ak les sapeurs pompiers dinañ jël matuwaay ba nit ñi mën a ñëw si jàmm jéem a màggal si jàmm dellu si jàmm waaye mu am ñaar rek yoo xam ne dañ ko waxoon léegi sasaat bu commissaire spécial bu Touba mooy li jiitu màggal gi ñu def ay opération de patrouille ci li wër Daaru Xudoos ak lépp loo xam ne xaw na koo xaw na koo jege la ca des mooy euh, contrôle yi ñu xaw koo yëwanal waaye tamit Euh, li nga xam ne tamit mënul ñàkk moom il faut que ñuy ñuy saytu waaye nag lépp loo xam ne mën nañ koo dimbale te du yàq dara ci dembeeg dikk bi foo naa ne nañ ko ci nañ ko ci def incha allah wàllu saytu ñam yi également muy commerce ak élevage surtout si njëg yi ñoom également dinañ indi seen ressources humaines ba incha allah rabi marché bi ñu approvisionné ko correctement mais également produits nekk des produits de qualité leneen rek mooy fi ñuy jeexale c'est l'organisation matérielle dégg nañ lim bi danañ ko jébbal suñuy kilifa muy ministère de l'intérieur ci appui logistique bi nga xam ne moom lañ ciy xaar li nga xam ne nag jàppandi na au niveau de la DMTA dinañ ko mobiliser teel koo indi incha allah rabi mais yéen moom il faut ñu daagaan ko ci kaw rek wax bés bi ngeen xalaat ne moom ngeen bëgg mu mu jàppandi dèjà peut-être foo naa ne dèjà suba nañ def ba lii nga xam ne jot nañ ko fee wax dañ ko tënk si ay kayit jébbal ko service yi nga xam ne ñoo nekk njaareem mais également ñi nekk au niveau central maintenant pour le suivi foo naa ne xat na boo xam ne pour defaat ndaje day jafe waaye foo naa la préfet de Mbacké ak comité d'organisation bi am na si yoo xam ne par téléphone mun nañ ko di ko di maanaam su dee secteur boo leen gis ne am na sooxe ci liggéey bi leen koy wax préfet Mbacké su préfet bu ndaam mu wax ko préfet Mbacké su waa ñun dinañ ko jot kilifa dañ ko jot ñu si mën a jubanti juba su fee nekk am na loo xam ne aussi ñu ah ñu am honnêteté aussi wax leen kat affaire yi mujj mujj mujj lijjantiku loolu moom euh, mooy li nga xam noonu lañ fas yéene ànd ak yéen di ñaan suñu borom yóbbu si jàmm ndax foo naa defaat ndaje ci liggéey bi day xaw a jafe pour mën a def le suivi du Magal Darou Khoudoss mais n'empêche ce sera fait avec les autorités administratives di ñaan rek suñu borom yóbbuñu seeg jàmm incha allah ba lépp luñ si ñaan suñu borom defal ñu ko ci réew